mais com sama photo na nga ko génne ñu xam ne man sëñ bi ziar na ma. Hmm. dëgg la. Hmm. tax nga dagg ma. ba am na sama bos. <laughs> dagg ma looloo ah. xaar nga ñëw. Ah, déedéet boo moo ah, génne waaleel bu Pape Moussa nag du dëgg. com boo di di di di ziar di ziar taal bi ma jaaxal amul. di ñaan lépp loo xam ñaan nañ ko ci gàmm bi yàlla na ko yàlla def ci. amiin yaa rabbi amiin de yàlla foofu moom gàmm nañu. ah jàng yan. jàng yi mën naa commencé à tout moment. jàng kat. wallaay. MC. tu es ñu koy nuyu. jëlee euh, mm-hmm. nga leer gu bari nag Kaolack. ah waaw foofu nag ku jàkkaarloog ñoom moom. yaa ngi nga lool tuwarkal. dem ziyaare ji mag yi mm-hmm. ñoo ànd dem dem dem ziyaare ji dem mm-hmm. fi nga xam ne Baye Niass fa la nekk comme xam ñan laa xalaat. ñi gisoon Baye ñoom na la ñu war a mel. ndax boo gisee ay sëtam li ngay yëg boo gisee Baye Niass xaw ma kon lan nga lan nga lan nga lan nga wax ñu leen dee ñaan daal lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci gàmm yal na ko yàlla def ci Sénégal comme li nga waxee di jaale waat tam ñi ñàkk seen bakken démb foofu ci euh, Touba ci inondation yu metti yoo xam ne war nañ ci mën a jël nag ay matukaay mhm. nañ ci jël ay matukaay ndax lañ ca def ci koppar yow nag kii da doon liggéey xëy na dem na ci sëriñ ba ànd ak ci taw bi mhm. dañoo àndoon maag moom. <laughs> da doon gàmm. da doon gàmm yi ñaaw de. déedéet ñaawul dañu eh, nettali rek. voilà maa ngi nuyu Moundé Rahma bu baax a baax. tiit rek. <laughs> ma maa ngi nuyu Babacar <laughs> waaw waaw waaw waaw sunu waa maa ngi nuyu Mourou Ndiaye wax ma. loolu fa def yow maa ngi nuyu waa Kawoon itam. <laughs> waaw <laughs> maa ngi nuyu waa Guinée dem ko tey wax ma préparé wu psychologiquement. ñu baax ñu baax ñu baax. ñu baax nañu maa ngi maa ngi nuyu ni nga dugg see. c'est <laughs> terrible booy wax ay waxam day tiit. Ah, yow yow yow est xam nga ne lekk boo ko def dëgg da ngay musoo. waaw fii du waaw sagal men. boo mooy musoo yooyu naa di def bu ñu toog. waaw waaw di di lekk. heureusement kër góor di musoo. moom moom la def. dama ko preuve à l'appui nga am ma bàyyi loola. Ah. waaw mu sedd ok d'accord Paa Moussa. mu sedd naa bàyyi sax añ bi ñëw ci lu bi mujjee Paa entrée la jël ñaari entrée jël plat de résistance xam nga la jël ci plat de résistance bi yàpp xar yàpp nag yàpp gëléem pitax. <laughs> diffamation ci réew mi moom la boole su boole li ma lay wax bu amee bu amul rek. plainte ba mu woote léegi téléphone fii. noonu la demee lii Babacar Sow laay woo. procureur Macky mujjee jëlul. procureur Macky dégg nga moom ngay autosise def ci loolu boo bëggee ma àggali rek man wala ma bàyyi ma gën a yàggalil ma ma àggali. yàggalil ma justice mu ngi ci bi mu defee loolu ba noppi. waaw. procureur Macky maanaam plat bi am na tous les yàpp. <laughs> du pôle financier. wuy ma tous les yàpp. tous les yàpp du parc zoo. naaw buy dox. waaw bu du parc zoo waaw moom la ko lekk ci benn plate. waaw bu mu ko lekkee lekk lekk. loolu résistant na waaw dafa demaat jëli. ah ah yamul ci loolu mu ñëw toog bu mu lekkee ba musoo gi dañ. <laughs> parce gi dañ la laaj ma la def. lu mu dafa dem laal supp. mais day reesal. Ah, pour diigal eh, pour diigal. léegi jox naa la preuve léegi moment bi bi di dem ak ñëw. <laughs> mu ne dafa gis euh, kii bi nu mu tuddati coof bi nañu ko lakkee noonu teg ci limon yeeg yooyu. coof ba <laughs> jën coof. jóge na teer mu jóge ci teer dem ca meer. sama avocat fu mu toll maître Babacar Ndiaye fu <laughs> ma toll. mami may ma rek. sama xel ñaare de. wuyu ma sama xel mi ñaare de. mami déglu bu mu jógee ci meer bu demee ci meer te mënul ci meer dara waaw ndax moom jël na meer teg meer nii waaw. booba fekk na gaañu na xool mais xool xool xool. parce que zone di jël ci firit ji di jël ci firit bi di jël di jël. firit teg teg ko. waaw Bamba Bamba Cissé. waaw jël ko dem ca dessert ba. laal na dessert. laal na plate dessert. sama xel ñaaw na de. léegi muy ba muy laaj plat dessert suñu wax ma mu ngi ko naan alaaj ba ñu leen toppatoo mu ah, ah, naan naa ne ñam na ci <laughs> ba la mais nag bu ñu duggee ci oto <laughs> toog ba une heure du matin ah, yow kay sa audio une heure du ba xale yi dañoo amul xam-xam yooyu expérience la expérience li expérience la loolu. xale yi xamul. xool ma xool xool ma xool ma xool ma. xool ma xool ma <laughs> oui xam xamuñu expérience xamuñu expérience ak ay recherche xamuñ loolu. kon recherche nga ay recherche ay étude la. yu yu profonde la loolu. bu baax nooy nooy. nooy loo gisagum mami. respire. <laughs> walaay loolu ay. respire bu baax. ay <laughs> étude la woon. ay <laughs> étude yoo doon def sama xarit bi dëgg la gëm naa la. day eh, xool yàpp pitax boo ko boolee gëlëm lu muy joxe. loolu loolu loolu. mais c'est ay étude boo koy def il faut nga xam parce que nit looy wax da nga ko war a maîtriser. merci mm. mami loolu te tey. dinañ la dugal. nga dem maa ngi waxal li nga gis sa nag yeeg yàpp dawal gi moom moom laa sentir fii ni ma ko bësee. yaa naa la nga yàgg daal la nii. ay la mën naa génne après mosoo preuve de alaaji. benn ngi nii li fu mu. alaaj bi kër gan kër gan. waaw kër gan xam naa ne moom boo leen wéndoo Pape Ousmane du fi soriwul fii. am xarit nii nga ma rasulee <laughs> ah, nii. lu xew. yow preuve mais yow ba pare yow Ngoné da nga yor ay ah, preuve mais dafa nag dafa am kuy oote nii sax yéen a ngi ah, am na kuy oote de yéen a ngi xiif yéen a ngi xiif loo mam yi rek kan mooy woote am na kuy woote de man eh. mayel kii woote mu ñëw eh. maman Nafi baal ñu nag waa plateau baa ngi nogg sa doom waaye <laughs> maman Nafi mi ngi jéggalu li li li nii nii danoo nekk ci séance d'explication li Ibrahima Ndoye mën na ci eh, Babacar Sow <laughs> yaa ngi en direct ñu ngi yaa ngi en ci plateau matinal. ana Mourou Seck. <laughs> ak madame Diallo boo <laughs> ko mandat de dépôt woon. waaw may ñu rek fii Babacar Mourou Seck nekk fi. Mhm. deuxième cabinet Babacar mu wax pardon Babacar mu ngi en te moo fekkee. waaw may ko mu wax. <laughs> dañ doon wax ci euh, musóor gi mu musóoroon ak yi mu doon lekk mu koy wekk. jën bi. merci. mu ni. lekk sar lekk pitax ba. waaw ah, ni nga ko doon wooyee tul foofu wooyee ko ba tey. ni nga ko wooyee déglu. Babacar yëkkatil baat bi tuuti may ñu nga ne lan la njëkk lekk. <laughs> mu ne ay xam-xam. daf xaaral rek may ma xam haut-parleur. jàll leen. waaw waaw jàll ci leneen. may pooju xar xar boobu doon seen. pooju xar merci. la ci pitax. merci. mu lekk bay bëgg a dee. Mm-hmm. mu man dessert lay jëri. dëgg la. Paa Moussa gàddu jën ñëw ne ko mu si mu coppati jën lekk mu bokk ko. lii de mooy mooy mooy bu commandant waxee ne man fekkewu ma bu ñu defee confrontation wax nañu fu mujjee te jus ba. bàyyi naa ko moom Seck yaa ngi foofu mu dem jël jus ba. naa eh? naan bi ñu bëgg a dee ci dëmbale saa yi ne ma mënatuma. jërëjëf. daa fër ba am sax daa mujj fër. merci jërëjëf Babacar. ah waaw ma xam Diallo. <laughs> Babacar merci. borom ñaari mandat de <laughs> borom ñaari mandat de dépôt ci benn at xam nga yàlla dafa dogal ni. <laughs> plateau bi eh. ba daj benn buur nga fi am muy man. Eh, ah, eh, waaye ndaw Samba Diomaye jugal ci lii. <laughs> jawaay <laughs> jàpp nañ benn jaam. te jubal jub jubal jubati nga wax yow lii yëpp ñu fi wax yaa ko def. nuyool nga wax ñu étude yi nga doon def lan nga gis. jërëjëf non ma mame mame Samba ñu waroon wax moom lan la gis ci diagnostic. wax naa ko mbàq moom bokk na mbàq yi laa rek. yéen may leen ko rek bu nuyoo leen may leen ma léegi yéen ngir yàlla may nañ la jëlal. nuyool nga wax ñu lan nga gis. tu connais ce monsieur. xoolal nu mu buqee bët yi. <laughs> antenne lu wàq yi du xam ngeen antenne yi antenne yi def lii ci wàq <laughs> mooy ci bëti bëti fukk na ni gisatul <laughs> oh, il va appeler mami li nga. maman na fi bal maa <laughs> xëy na. waaw léegi li nga ma yee fajar kon. ah dem yaa doon ñoo yaa commencé ngeen dem ci guddi. li eh, nga doon woowee Babacar Sow ci gàmm gi yëpp ndox woowee woo ko teg. <laughs> non lii rek laa <laughs> ko bu bu dee déballe rek la nañ déballe lépp. <laughs> na ñaaw ñaaw na ba pare rek. mais yow kay foofu nag ko de wax nañ éclaté lépp. ku ko la c'est-à-dire dafa am yoo xamante ne. Euh, bon loolu sax déjà constitution moo ko njëkk a lijjanti. constitution lu waaye di def da nga koy xam. juridiquement. Hmm. booy lekk da ngay mën a xool def échantion par échantillon loolu échantillonnage la. ok. li euh, ñu comprendre <laughs> voilà exactement on prend notre voilà large large tome. on prend notre tome toi tu peux noter ci eh, eh, eh, boo boo boo jëlee pita large tome dañ ciy jël benn. kii bu ndaw. baal leen ma bu ndaw. après ci laa jëli xar bi. def ci. Euh, nag après dem ci gëlëm pour mën a xool léegi. Ah. lan mooy maintenant euh, décision définitive. si d'accord décision looy def ko xam. non non tax tax tax décision. définitive décision définitive défi. défition défition définitive waaw défition. ay ca décision définitive waaw décision définitive waaw monsieur. finalement j'ai compris que mais viande rouge. Mhm. viande en ci heure boobu quoi taxawal taxawal viande. rouge pardon s'il waaw waaw boo ko lekkee doo def effort. xaar viande rouge zéro heure. da jël léegi maintenant taxawal viande viande rouge. zéro heure viande rouge. viande rouge. d' accord <laughs> eh, waxul li rouge de. <laughs> la décision définitive moo doon jën bi nag. waaw dama dem ba ci biir ma xam ne léegi jën bi moo gën a mooy gën a adéquat ci situation bi. Ah, ah, mais boobu dugal nga eh, test la woon yow tamit bu ñu. waaw kay. du ànd ak moom. day mel Diomaye fu muy soxna Marie Khone. laay wax wéyul Adama Mbengue nee na résultat gastronomique <laughs> gastronomique. Ah. teg na may yàq sama yoon États-Unis non non non non moom waxul waxul ci côté yooyu yëpp juridiquement. voilà décision définitive. soxna am nga moom bu a wax. mais donc fi mu li ci li ci bi. moom mooy ànd ak Ngoné Saliou Wóoru. ma yàqal de damay alerter. maanaam mooy hypothèse bu ci dégagé voilà hypothèse bu dégagé très bien. madame Marie Khone madame Absat ànd ak Ngoné wóorutul. loolu loolu kii day filmer. <laughs> mais mais monsieur monsieur lii mu def nii mooy. compte rendu. fidèle waaw moom moom ma journaliste ba pare moom deful diffamation. léegi diffamation diffamation ah, consolidante déconsolidante defoo ko. deful diffamation parce qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle. ah, ah amul révision pas. kon duñu consolider. très bien léegi finalement loolu ñu ko joxoon moom tailleur bi. tey Cheikh Mbengue de boo ko. waaw jël jëlal enquête mbaq yi <laughs> dafa am waaye tey viande dafa am ko koy ngore Saliou. Mamy Samb. explication dafa waroo ak li nga gis ci diagnostic. non non non xaaral balaa diagnostic bi di ñëw. parce que bëgg naa xam ci lii mu wax nii yëpp. ci constitution bi bu ñu ci sukkandikoo. ban article la ak alinéa ñaata ñoo ko tënk. ci ban fas la. madame madame madame madame allez. article Nokos. alinéa compte max gastronomique. <laughs> merci beaucoup. compte max gastronomique émission bi te compte max gastronomique. sa demuk màkk dinañ ko seetal. jabatoo yaa ngi fii toog. bu ñu Pikine technopole laa la wax. maanaam ma jabatoo ma la wax. maanaam jabatoo wóor na. bàyyi ma ma dem. pourtant fii maa fi gën a toléré parce que man nee naa la maay sa buur. toogal Pikine technopole. waaye baal naa waaye na yaa bu saf. da niil. ne peut faire plus. Ah. est ce que xam nga yaa ngi Ismaël ma Yoff yéen a yem. nii na ko. non dëgg la. nii na ko prendre ne parce que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. yow nga def nul peut faire. plus de trois viandes rouges consécutivement. nul ne peut faire terre mer en même temps. léegi la niil bu niil lay appliqué wu lii ngeen wax ñu ah, préparé lii ca livre rouge ba la jëm. voilà viande rouge. naka la ko naka la ko Cheikh Abdou waxee le petit. waaw <laughs> visible. mais qu'est-ce que c'est que ça quand même. ah. loolu sama la yàq. dossier bi. waaw ba beneen yoon incha allah. comme ça dinañ ci ñëwaat ngoon yi indi ci un peu parce que actuellement àtte bi. mënagul euh, non dossier bi amul juge bu ko àtteegu. Ah, yóbbu leen ko instruction wuy <laughs> Tamba rek. am na yeneen <laughs> la jëm. xam nga kaw la ñu ah. la mooy yow témoin nga ah. xam d'accord dañuy il faut il faut bi du ma xam rek. Hmm? ma ne exclusion bi daal du maa xam rek. maa xam rek daa mel ni Matam lañ ko yóbbu. maa xam nga Tamba ñu. Tamba lañ ko yóbbu de Tamba lañ ko yóbbu. man daal de dépôt xoolee diggante Kaolack ak Tamba bàyyi nañu yóbbu ko Tamba Pape Moussa tu m'as fatigué aujourd'hui jërëjëf. am na tout chargé na tout chargé boole. article nokos. <laughs> tu n'es pas sérieuse a alinéa 1. Pape Moussa Sow ah, yàlla baax na. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Babacar moom wax dëgg yàlla dootoo leen ko dab ci même naa la xamal